jërë ngeen jëf yéen ñi tàmmu dakarnet point comme ni ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax euh, bu leen fàtte bés abonné comme ça vous serez les premiers à être fële ca Bambey yi ci guddik aljuma jàpp samedi fële ca marché ba benn cantine lañ fa cambriolé cantine bu doon jaay ay téléphone ak ay accessoires téléphone moom lañ fa cambriolé nag ki ko def nag yóbbu na fa matériel bu am maanaa maanaam ay téléphone jële na ko fa ak ay écran ak d'autres accessoires waaye nag euh, ki nga xam ne moom lañ cambriolé euh, cantine bi mu dendal dafa amoon benn caméra ay caméra de surveillance ñoom nag ñoo jot a filmé ñi ki doon cambriolé mbir mi biñ ko joxee waa police nag ñu daal di koy exploité bi ñu ko exploité nag def seeni investigation ñoom ci lañ jàpp benn góor gu toll ci juróom benn fukki at ak ñett nekk mason nekk foofu ca Bambey biñ ko jàppee nag moom góor gi bañ ko perquisitionné fekk nañ ci moom bi biñ doon wër maanaam ay téléphone ak ay accessoire téléphone ak ay écran téléphone yu bëree bëree bëri waaye nag moom góor gi sax dafa xaw a yombalal waa police seen liggéey ndax biñ ko laajee rek daf ne moom moo def mbir mi la ci fële ci village bu Mbodiène nekk ci commune Nguéniène Nguéniène nag moo nekkoon commune bi kii di ancien secretaire général du parti socialiste di Ousmane Tanor foofu la dëkkoon Mbodiène nag di benn village bu nekk ci commune ba moom nag mbir mu doy waar moo fa xew bi seen jàkk ji lañu fekk ñu taal ba maanaam lakk ba jeex tàkk bi ñu laajee imam bi nag nee na lakk-lakk bi nit moo ko def ndax moom bi mu yegsee ci jàkka ji ay 5 heures du matin dafa fekk jàkka ji kenn tëju ko ñu tijj ko completement donc maanaam nit jiitu na fa avant moom mu yegsi euh, bi mu xoolee nag gis na ni fukk ci ay kaamilu alxuraan daal nañ ko fay jëlee malaan mi nga xam ne tamit ñoom moom lañ doon lal di fi wasifa malaan mi tamit yóbbu nañ ko sijaada timit yi nga xam ne moom lañ laloon ci jàkka ji daal dinañ yóbbu lépp fekkuñ fa dara kii di Moussa Sène nag di imam bi nee na li tax mu wax loolu sax mooy bi mu yegsee 5 heures di matin dafa gis maanaam mbir mi di tàkk ci biir mu xool gis ne buntu jàkka ji timit mi ngi tijjeeku mu dugg di jéem a xool ndax nit mu nga fa wante gisul kenn noonu nag ci la séenee tàkk-tàkk bi eh, ci biir eh, jàkka ji ci la nag daal di génn daw del di wuti wollu ci mbokku dëkkandoo yi daal di leen yee ne leen e, jàkka ji mi ngi tàkk waaye nag ginnaaw loolu yëpp ñi ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ndax amul perte en vies humaines maanaam kenn gaañuwu ci te kenn génnu ci àdduna ci biir élan de solidarité boobu nag ñi di mbokk chrétiens yi nekk foofu ca Mbodiène daal nañ eh, ñëw seet si imam bi ak eh, musulman yi indi leen seen ndimbal bu ko defee nag eh, bañ fa jógee tamit yëgal nañ ko ñii di waa police bi ñu ñëwee ci lieu yi daal di constater les faits xool lépp lu fa xew tijji nañ ci nag tijji nañ ci nag benn enquête pour xam maanaam origine incendie bi kan moo ko waral wala lan moo ko waxal bu ñu jógee foofu nag dañuy dugg ci làmb ji kii di ancien roi des arènes di Yaxya Diop Yékini nga xam ne bi mu bàyyee làmb ak léegi kenn xamul ci lu mu nekk ñu bëri ñu ngi laajte Yaxya Diop Yékini ci lu mu nekk moom nag dafa mel ni gis na yoonam mu wute nag ak mbër yu bëri bëree bëri nga xam ne suñu bàyyee làmb dañuy am d'énormes difficultés pour am beneen métier wala reconvertir ci leneen Yaxya Jóob ni nag moom moom gis na yoonam bu baax a baax kii di gonek baasul gi nag moom li mu jàpp mooy exploitation bergerie maanaam yar xar waaye nag du n'importe quel xar ndax ay xaru laadum lay yar di ko jaayaat waaye nag euh, biñ ko bi ñu laajtee nag maanaam xar yi muy jaay moom prix bi mu commencé ci six chiffres xar yooyu nag moom lay jënd di ko yar defaraat leen ba ñu baax mu jaayaat leen maanaam moo yor na benn bergerie bu yaatoo yaatu yaatu Yaxya Jóob Yékini nag mi ngi ci bagage yooyu jamono jii nii waaye nag may wax rek képp kuy jënd ji moom te sa poos xawuta diis tuuti yaakaar naa danga koy romb daal di seeti keneen